salaamaaleykum mbokki internet mbokki téléspectateur yi safoo TMS TV daal di leen ak jàmm ci seen euh, télévision bi nga xam ne mooy feeñal yi nëbbu ñu ngi leen di wax nag mooy video boobu ngeen di gis mooy li nga xam ne moo xew fii ci Kaolack ci Medina Baye mooy xalif nga xam ne ñu woon fii ay fan yi weesu ñu war ko tey nag jébbal boromam nga gis ne délégation yu bëri ñëw nañ fi jóge fu ne ay bitim réew muy jóge ba Nigéria ñuy jóge ba Algérie ak feneen ak feneen ak doomu senegal yëpp ñi nga xam ne ay taalibe Baay Ñas lañ ñëpp dem nañ fa ngeen gis nit mbooloo mi ni mu bëri malgré corona bi nit ñi bëri fa macha allah policiers yi aussi nguur gi déployé na policiers yu bëri. Euh, donc pour jës saytu seen kaaraangeeg yooyu mu nekk lu doy waar ngir rek wane dayo bi nga xam ne moom la xalifa bi tolloon ak baax gi mu baaxoon ni ñëpp dem nañu donc fekki ko pour gunge ko ci ci bërëbam bu mujj ñu koy ñaanal donc yàlla xare ko àjjana te suuf sedd ci kawam yàlla taas ñu ci barke alors chers téléspectateurs euh, chers internautes euh, de la TMS TV bienvenue sur votre chaîne préférée et merci de votre fidélité si vous voyez vidéo vous euh, parce que euh, qui est décédé il y a de cela quelques jours doit être tout simplement inhumé aujourd'hui. Et là, les gens sont, euh, venus pour assister aux obsèques. Les gens sont venus de n'importe quel pays, d'Algérie, Maroc, du Nigeria, ainsi partout ailleurs, vous voyez les talibés qui sont sont venus tout simplement pour euh, vraiment assister aux obsèques et vraiment, donc, comment le dire encore, pour euh, accompagner euh, le calife jusqu'à sa dernière demeure. Quelque chose qui est vraiment incroyable, qui montre tout simplement la grandeur du calife qui est parti il y a de cela deux jours. Un calife qui est vraiment un homme de Dieu qui faisait que du bien. Et vraiment, aujourd'hui, il l'a démontré encore une fois parce qu'il y a une marée humaine, une, population incroyable de disciples venus de partout tout simplement pour assister aux obsèques, ce qui est euh, pour la terre lui soit légère. So dear ladies and gents, dear followers of TMS TV, your favorite channel, the channel showing what was hidden. Uh, you see it this video. You can see many persons here because the persons are here so as to attend to the last, very last moments of the Khalif who died, some days ago. And this very Khalif, was a great Caliph, it was the Caliph of Medina Bay. You see people coming from everywhere, from every kind of country, from Morocco, from Algeria, from Nigeria, from every kind of country, so as to come the very last moment of the Caliph and see him to his very last house. You see, then it is unbelievable. You see many people coming from, all over the country and all over the world just coming to attend to this very, uh, situation. It is really good, and you see that religious praying for God to permit this very Khalif to live in a high paradise and then you know the earth the earth be so uh, how to say it, so so light on him so dear followers dear fans of tms tv be following tms tv and stay you know on your favorite channel and you will be seeing what is happening all over the world what what is happening all around the world thanks for your faithful and thanks following us every time